notre deuxième sortie ici à, la plage de Malibu. Nous dañ fi pour gagner faire ce qu'on appelle communément chez nous moins li de def ron ou randonnée randonnée canine histoire de sortir les champs Nous ñaari deux clubs le berger allemand et le rottweiler parce que gagner Khadi, nous muy à ay oto di gis ay et tout c'est c'est pour sociabiliser les pour xaj bi sociable avec les humains dañ fi ñëw fekk fi ñeneen ay profane yoo xam ne xamuñu luy xamuñu luy luy xaj xamuñu dara par rapport au chien ci la ñuy profité pour def sensibilisation wane ngëneelu xaj wane xaj naka la ñu mën a jëriñee suñu kër yi wane en fait les avantages du chien à la maison donc loolu moo tax ñun ñu génn tey l' association comme association bi ay club ñoo ko ñoo ko ëmb ñu club Rottweiler berger allemand club malinois club canicorso euh, y a le club pitbull tey club Budweiser bi ak club euh, berger allemand bi ñoo gën bon pas mom lañu gëna bëgg mais je sais que berger allemand mooy race bi gëna a bi ñu xam euh mo gëna populaire après y a le pitbull américain pitbull terrier Budweiser tamit ñi ñu bëgg nañ ko donc ñoo fi bëri en terme de de nombre et tout gars yi moom lañu gën a xam parce que ñoo fi gën a yàgg ñoo fi peut-être ci xaj yi fi njëkk dugg Sénégal donc voilà waaw ce qu'on est en train de faire dañuy def démonstration pour euh, c'est du, mordant. tu vois l'homme d'attaque, il est en costume. Et le chien il mord sur la costume. Voilà, c'est ça. C'est un berger allemand qui est, qui Il a été formé pour ça. Bon, ce que je conseille, c'est lui-même ce conseil. c'est que celui qui adopte un chien, c'est une responsabilité. C'est comme d'homme. Donc, il y a. Donc, y mais c'est des champs de famille Bagn ko ragal xam ko mo gën bagn ko ragal parce que li ñuy wax daf ñu ëttu dañuy ëttu suñu tool ëttu ñu suñuy kër donc xam ko diko entraîner diko dresser comme ces chat ils c'est un dresser. dressé donc c'est pas xaj bi songé non ci mbéd bi donc li mëna wax nit ñi moy le chat a ses avantages le chat est xaj c'est comme on dit c'est le meilleur ami de l'homme c'est pas pour rien qu'on le dise donc nañ ko jéem xam bëgg ko amal nañu njëriñ socialement amal nañu njëriñ dans la maison en matière de sécurité aussi c'est très important dañuy def ay dégâts parce que xam nga yarkatu yarkatu xar c'est pas un professionnel du champ donc boo bëggee jël xaj du ko sa kër tu vas appeler un professionnel mu ñëw mu dresser la sa xaj socialiser ko par rapport au champ ah, par rapport au au mouton mais da ngay gis ay yarkatu xar yoo xam malheureusement dañu am seen i xar jënd benn xaj ne ko chari. Bah leen ko ci niche du ñu gis xari ba bés ñu daje accident c'est des accidents qui ont xam éviter tu vas appeler les professionnels ils sont là il y en a dans ce milieu ñu ñëw dresser la et puis tu n'auras jamais de problème c'est pas une question de docilité c'est pas une question de docilité pitbull berger allemand pour nous, c'est c'est les mêmes races c'est vrai que ni ni c'est pour ça il faut appeler un il faut appeler un il faut appeler un professionnel en fait c'est pas les chiens qui font des dégâts Nous, nous avons def dégâts c'est les champs qu'on doit éduquer c'est les, les, humains qu'on doit éduquer Ni de c'est pas les chiens. parce que les chiens n'est que l'image de son maître donc si tu es docile tu auras un chien docile tout simplement bon je vous remercie on remercie Ovision d'être venu euh, magnifier euh, cette journée et voilà euh, on vous dit merci de votre présence et en espérant que les autres fassent comme vous ñu et, puis bon voilà et ça ça va faire partie

mais aussi on s'est engagé pour l'amélioration de la race, des différentes races au Sénégal. Aujourd'hui c'est une journée de sensibilisation parce que nous nga ni fi nit yi nekkee gars yi nañ mais dañoo xamul xaj mais xaj soo ko c'est vraiment l'ami le plus fiable au monde moom loo ko jox on dit il n'y a pas de mauvais chien il n'y a que de mauvais maître xaj bi mom na maître qui mel rek lay xaj bi di mel wa loolu dal pour mbaba moy sababu jeu bi sensibiliser

voilà non contact l'association du Canin du Sénégal man O. Moi 77 651 02 85 soo ma information boss soxla mën naa la ko jox club sur soxla tamine ne mën nga da bëgg intégrer. intégré mën nañ intégré on donne des cours en ligne On a des cours discipline obéissance Ça fait que fekkee am comportement boo xam ne neexu la nan nga koy dindee yooyu yëpp dañ koy def mooy démo yi ñuy wone pour vous ne xaj moom loo bëgg am ci moom rek mais il suffit que nga yar ko ci gën ci